Mm-hmm. xam nga Sénégal li fi xew ñëpp xam nañ ko. Mm-hmm. Macky Sall dictateur gi mu bëgg a continuer Sénégal fii moom la kenn mënta xam. Mm-hmm. loolu wut te gis nga wa yéen campagne bi yéen mu ngi ay waaj yi campagne bi yéen a noo ci xew. campagne bi Amadou di dara dara ci ci mbedd de Sénégal gii. lu na nar na cee xew. waa xanaa ñoom ñaar bokkuñu fu ñu far ñoom ñaar. mais en fait problème du problème politique problème bi mooy garde corps yi euh, ministre daanaka ñoo doon fitnaal sax à la limite garde euh, ki nga xamante ne moo di docteur Marie Khemesse Ngom. waaw mooy li ma mooy li ma la wax xanaa Marie Khemesse Ngom. waaw ak Amadou ak Amadou ñoom Macky bokkuñu ñoom ñaar daanaka ñoo bokk pa affaire bi. ah docteur Khemesse moom moom politiqueul de moom moom ministre rek waaye politiqueul. waaye mari xamas ko ma daa ko tuddee yëpp nga ma xel mari xamas ko bëkki démb daa moo fa génn naan ay Touba nangami kaa ay Dakar nangami kaa ci coronavirus bi di fen bi dajale ñëpp ba pare ñu sàcc suñu alal ci ci ci ci période Covid bi ñoom xoolal ñoom ñëpp Macky Sall lañu àndal ñoom ñoom bu defee ko fañ rek mm-hmm. waaye li may wax te bëgg ko leer na mooy mm-hmm. ay waaye bu ñu bëggee jàmm ne ay seen caaxaan yi Sénégal yi xam nañ ne dañuy caaxaan caaxaan nag am na foo xam ne bu ngeen fa àggee mm-hmm. maanaam maanaam maanaam histoire bu nekk hmm. ku doon bind am na fu muy jeexee hmm. histoire Macky Sall bii boobu ba léegi mars vingt et un ba léegi lu mu génn dal ci la ca des lu mu génn dal ci la ca hmm. ñoo xam ne aat dëgg lañ war a teg nga xam ne war ñu fee xam ma sàmm war ñoo xam ma demba ñu dema ma dem ba pësier mi ànd ak maanaam benn waay boo xam ne sëñ bi nguuram gi daanaka jeex na bu dee juge nga di àttee àtteel dëgg bu fekkee na moo àtte dëgg bu Macky Sall di jóge si dëkk bi yéen ñaan ngeen ànd fi waaw bu fekkee liggéey Séné Macky Sall la fi teg bu fi Macky jógee ànd leen amal góor ngeen ànd bu fekkee ne liggéey Sénégal moo fi tax boog bul xool lu intéressé Ousmane Sonko bul xool lu intéressé Macky Sall xool li xam ne maam mooy sa liggéey Sénégal yi ngay ngay liggéeyal mhm. man tey damaa génn comme ni ma ko far dox rek man lépp lu ma gis lu si ci dëkk bii mhm. barki suñu Fall dinaa ko weje man damaa dem dëkk bu ñuy wax ci seen bagaan mhm. xam naa ne moo tax buur yi du bëri ma am ay kayit yu ma doon liggéey ci ñàkk liggéey gi nga xam ne ñooñu nag Sall ñu ñàkk nañ koo liggéey ah jaw ci seen mbaaraa Touba laa xëyee am na koo xam ne wàllum kayit yi nga xam ne am na koo xam ne an kandi jàppale sax moom moo njëkk day si gi nga xam ne maanaam dafa am rôle bu am solo boo xam ne moom moo ko war a suyee ci kii lañ toog bu ko xaar ba un heure muy doog a fay si ñëw gaa yeg ma toon ma koy tooñ ma ne ko sawaay yow xanaa da ngaa yor ma ne ko yaa ngi ñaat benn waaye naan na sa waajur ak célibataire ma ne ko bu dee célibataire la moo bu dee célibataire la hmm. maanaam quatre heures du matin la war a yeewu hmm, hmm. mu amaayoo ñu naan célibataire ko ak adool même boo doon juróom ñaar fukki jabar yow heure bi daa war a ko sëñ bi kañ man Tuubaa laa jógee am mu mu yow laa doon xaar boobu ba léegi waaye nag ñu jàpp naa ne ay buur ngeen moo la sa waaye xanaa séeréer nga mën na ko xaw ma lu ma doon de waaye boobu ba léegi ñu ngi def waaye ñàkk liggéey ji ñàkk liggéey Sénégal ngir topp seen ay tappale boo demee ci mairie bi uti kay du ma jënd boo demee ci hôpital yi feebar boo yóbbu kaay ba ngay dee boo defee accident bi ci àll bi maanaam da ngay dee ci àll bi maanaam boo def boo boo boo bëggee Ousmane Sonko fi ne sax bakkan bii mën ci xottu gerte man nga xel ci dëkk bi laa xamut maanaam lan la ñun est-ce que am ku jógi liggéeyam ñun am na lañ def yàlla loo xam ne yëg ko ñoo génn ba ci la ci des. d'accord léegi léegi léegi léegi su ñu desee foofu noonu aussi parce que yaa ngi évoqué àll bi yaa ngi évoqué ndaw ñi. ni nga xamante ni noonu ndaw ñi di bàyyi réew mi parce que sànq am na ko ma doon waxal ma naan Ousmane Sonko am na la ko waxoon message bi nga xam ne jébaloon na ko ndaw ñi mais lan moo tax tey ndaw ñi ñàkk yaakaar réew mi ak ni nga xamante noonu la réew mi waroo taaru ëllëg ñu fiy bàyyeekoo di daw bitim réew ba di di di daanaka sax di di euh, di euh, di tayle seen bakkan waa xam nga sëñ bi maanaam naa boo ko doon boo boo ko doon maanaam boo ko doon boo ay jafe-jafeem mm-hmm. man damay wax ne tey Macky Sall bu ma mën naa toog ak moom huit minutes mm-hmm. bu ma wax ak mën naa ko may sax mu métaan mm-hmm. askan wi ak jafe-jafe askan wi su ma ci wax ak moom ñetti minutes Macky Sall ba ma xóomut ma wax ak moom ma xam ne kii du góor parce que jafe-jafe askan wi li ñuy li ñuy jànkonteel maanaam ñoom xamuñu ko yëguñu ko gone yaa ngi ko micro quoi gone yaa ngi jaar ci géej gi di dem kan moo gàdd responsabilité boobu nga am ci kilifa yi maanaam njaboot maanaam maanaam borom kër yi ci lañ bokk respectable si benn bi état bi la mhm. borom kër yi ñoom nañ si nañ ay doom ci doylu mhm. koo am fukk nga xam ne fukk nga mérite ko ku am salaire cinq cent nga xam ne moom nga am bu dee soixante mille soixante mille bu dee cent mille cent mille bu dee ne nem nga xam ne loolu la yàlla na mu sa jot bii te nga war a am bala ngaa dee diñ ci jot bu fekkee état bi dogal askan yi ñooy cotisé lépp jox leen ko ba néew doole mhm. xam nga ne Macky Sall doole ji muy xeexam ni doole askan la takk day ñun ñoo leen di fay bu dee yére yi ñuy sol ñun suñuy tëri suñu xaay la jar bu tën garab bi ñu am damay wax ne tiise bi ak tiise la def ñaw ko ñawal ma so waatene takk def bi tiise bi du sol ak tiise bi ma sol bi kiif kiif la maa ngi ci téye ñawlu ma xëy na la mu jàng ba am garab ñu xus-xusal ko ay ay quelque garab ci mbubb moomu bu xoolee garab bi war garab bi pour lan la ñu aar askan wi suñu ay jafe-jafe bu ne yaa ngi dem bitim réew ñu kër boo yëpp daanaka dem léegi ñu daal di boole kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa kaa ñu ñu ñu ñu téye leen xam nga fu ñuy mujj fi nekk nii seen ay jur jaaxle nañu. bu mhm. ñu jaaxlee boo xam ne day demal ci biir am ay agri xam nañ ne lii naan li immigré dañuy yor ay xaalis ñu gën a tar ci àll bi ko nangu. loolu mhm. ci kaw si naan la ñun ba kañ ñun dañ ñun ñun dañ ñu arrivé ak Macky Sall mi yor nguur gi. Mhm. Macky as gor nga bu fekkee as gor nga. dal sa yaram fii gëstuwaat sa aw askan gisuma benn ministre taxaw di wax ci jafe-jafe yi askan wi di dund ci ñuy dem ci géej gi ñu jaar ni korokora ak yeneen déggoo ci benn ministre toog ci télé wax aju bi paase damaa seetaan télé yëpp mais ministre yi tam yi ma man ma ma jotal déglu ci télé yi ñuy wax dama ne ñi xanaa Sénégal gi ñu waxal xanaa day Sénégal goo xam ne fa la ñoom Senghor dajee ci yow ma koy am waaye du Sénégal senegal bi fa dégg ministre yi Macky Sall doon ko xaw ma gars yi Macky Sall doon ko waxtaanee barki dem ci àjjuma ji Sénégal googu ma ne du Sénégal gii mais saa tubaab di yeewoo. dëkk bi am na yoon yaa ngi lekk ma na ko bu dee lekk kañ yaa ngi lekk. xaj yaa ngi lekk mbaam yaa ngi lekk picc yaa ngi lekk yaa ngi dégg àll bi ay picc ay kiiw kiiw ay doomi aadama bay seen dugub la siy di picc ya ñoo ngi ko ca ñoo ngi ko ca dàq wax léegi jafe-jafe Sénégal gii li ñuy dund sàcc ngeen suñu courant bii sàcc ngeen suñu alal bii jël ngeen pale bi def ko moomeel lii ngeen war a xam Macky Sall ku ko mën koo koo koy mën a wax noo mën a sant xoolal ko noo mën a sant laa noo mën a sant loo mën a wax Macky Sall te noo ko Macky Sall boo yaatuwaatee doo mënu ko dëgg foo mën a doon noo mën a na li ngay teg askan wi métti na barke ak xoolu kër man saa tubaab nee na ab naafeeq la te mu naa fi xoone ngeen ko parce que man dama ko dégg ay dama gis ay nit yoo xam ne mhm. billaahi am na koo xam ne cent mille francs lañ ko tayee mënoo maa génneel juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne cent mille maanaam dañuy fayoo ko trois cent mille ci Sénégal gii nga xam ne leen tudd xam ne sax mën a dem seen kër ah. lépp ci Sénégal yi ay góorgóorlu lañ gis naa ci kenn ki cent mille franc la fayee ko mm-hmm. jor mbay ak jabar ak benn doom kër ga mm-hmm. di fayee ko cent mille franc dépassam nekk trois mille franc loolu quatre vingt la ñu jeex bañ lay topp dix mille franc mm-hmm. sa jabar loo bon bon loo nay nay nay weer wi di nga warloog moom lu mat dix mille francs ko gis gis njàng di jël cinq mille weer. merci cinq mille ko ci def weer. loolu ñu bëgg loolu day bëgg nekk maanaam day bëgg nekk trente cinq mille mhm. cent trente cinq mille ñu lay topp trente cinq mille mhm. yow sëriñ bi ngay jënd boo liggéey bu wàcc xanaa ñaan nga yàlla jaar ci boutique bi wala nga jaar ci marché sa sax téeméer téeméer boobu ngay topp trente maanaam quinze mille francs lay doon soo seetlee sa am cent mille franc la. Mhm. am koo xam ne trente bu jigéen ak benn benn booy cent mille franc damaa am trente franc sur na mille franc. weere trente mille am na trois cent soixante mille da ngay liggéey dix ans doo ko am trois millions six cent. Mhm. boo duggee ci la boo bëgg. merci ñu bëgg wax ne Sénégal boobu mu ngi am jàmm. ñoom bu ñu la sax ñoom waaye wi. toroxal gi ñu toroxal boo demee ci bi ngay sàkku ay këyit hmm. wala nga dem ci hôpital wala nga dem feneen ak feneen xam ne ñoo ko fay fekk hmm. Hmm. dañ lay humilier di la toroxal te yow yaay seen carte yaay seen bâche yaay seen la ñuy sàkk foofu sob dañ lay jar ci la du sàggan moo ñu ko ci commencé tey la ñu boole seen ay dërëm seen ñaar dërëm seen fukki dërëm tey la ci yow fay ci sax tey ci pare ba muy Macky Sall merci koo xam Sénégalais jàpp nañu léegi merci surtout Macky Sall ab ñun ñoom loolu la ñuy jàppee wax dañu am koo xam sax buy dugg daal. merci ah, merci beaucoup jànguñu xamuñu. moo gën a def gën a ànd ndax ku jàpp ne def nañ yow yaa gën a def. ku jàpp ne dañuy jànguñu yaa gën a ci taay affaire di xas sénégalais yi. Mm. te ñoom bu ci Sénégal gi di wax ne réew mi am benn benn waay. Mm. bu ngeen ko posé question sax waa ji day daw question ko moytu rek ñu topp ko di loolu ñu topp wax benn affaire boo xamante ni andi la ak seen article yi. jaajëf di jël taf fii di jël fii taf fii nañ gi ñuy sàcc àll askan bi <laughs> nañ bàyyi nit bi ñu. d'accord merci Macky Sall bu dee déggoo wolof. Hmm. déggoo français déggoo anglais. déggoo pël déggoo joolaa. mag yow lan nga dégg lu leen di ñu wax ñu wax ko dëkk boo dem ña fa ne lañ dégg lañ yàq dañuy wax la ñuy wax mais yow nañ woo dégg. merci beaucoup man pale ba la fa ne war naa koo xam ba ku doon teg di nga bon man pale ba war nañ man man Touba maa yow ñun ñu am ko émission ba am gars lu tax ku ci dugg ba bëgg a maa di fay ñu ngi def xaw yow bu